ñu ñëw rek ngir euh, leeral lu jot a xew léegi léegi dañuy commencé ca ndoxtel ba mooy hier nuit la le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba woo ni ñu kat euh, Moussa Sow mooy coordonnateur COJER dafa war a ñëw mbir Médina pour que ñu def une délégation nu mu gën a yemambaayee gën a baax pour ñu dem teewal ko apporter ko suñu solidarité donc on est venu répondre à l'appel de Moussa Sow encore une fois on pas été convié par les structures étant à la Médina mais malgré ça président nous a dépêché pour que ñu ñëw kat euh, teew foofu noonu euh, Moussa Sow quand on est venu sur place gis ngeen li fa xew mooy que ne l'accueil n'y était pas donc ñëw nañu buntu xataal nañu noonu lañ ko mën a misaalee euh, bu ñu ñëwee dugg ci benn salle ndaxte ñun ay ndaw le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba lañu te it yaakaar naa ne événement 23 juin li ko marqué mooy leader d'opinion ñoo ko marqué woon en 2011 ba taxoon na kañ def renversement de pouvoir boobu noonu. donc Moussa Sow bu ñëwee biir Médina nag yaakaar naa ne événement leader yi la Cheikh Ba moom teelu ko yëg moo tax mu jul libéré agenda am mu ndaw mu yónni mu yóbbante ñu fa ngir ñu teewal ko foofu noonu. et quand on est venu ils n'ont pas voulu que mu dugg ci biir saal bi ce qui est déjà déplorable primo euh, ñun kenn kenn si ñoom invité wuñ ñu da ciy secondo it nanguñu dugg ci biir saal bi mu nekk benn injustice bi nga xam ne ñu ngi koy dénoncer à la Médina ndax yaakaar naa ne bu lamb bi ñaawee woon en 2017. ñun CATB ñoo tax suñu ndigg wàcc sur sur le terrain changé écart de vote amoon jëlee ko de de presque 4000 voix indi ko ba ay 900 quelques voix loolu tamit euh, yemuñu ci en 2019 le président soxlawee deuxième mandat au premier tour ñun tamit la ñu owaat ñun CATB ñu wàcc si ci ci mbedd bi xeex ak doomu Médina yi convaincre leen sur le programme de son excellence monsieur le président Macky donc ñun tamit dañuy laajte loo xamante ne kat mooy ñun suñu ak suñu yelleef à la Médina Force est de constater qu'à la Médina, on numéro 1 et on assume notre responsabilité. Si on n'est pas numéro 1, on est numéro 2. Et les, et les statistiques sont là, elles sont démontrables. On a des objectivement vérifiables. Donc ñun bëgguñu xajamal dara moo tax ñu ngi baal ñëpp àq ndaxte képp xam Cheikh Ba xam ko ci yar xam ko ci ngor waaye ñun tamit du ñu nangu ba gars yi duñu rey encore une fois dañu ñu demandons nous ce que nous revient de droit ndaxte kat ku nekk si naaj bi nga nekk ko ci kër gi bu mu méttee ñu lañu oo ñoo changé la donne à Médina donc yii amee dañu war di ñu impliquer davantage nous remercions également Moussa Sow ci élégance gi mu am ba invité le président Cheikh Ahmed Ba moom ñu ngi koy remercier mais je me dis que béy sa weewu tànk balaa ñuy xaar kenn du ñu invité waa gox gi ñu war a invité ba noppi nag loolu la ñu dénoncé wax dëgg neex fa yàlla également nous présentons toutes nos excuses ci lu jot a xew waaye comme on dit rek bëñ ak laamin ñoo dëkk waaye léeg-léeg bëñ ju màtt laamin donc euh, allié bi parce que ñun yëguñu ko mais malgré ça on réussi une forte mobilisation te dinaa la jox liste bi après nga mën ko publier ndax c'est l'occasion pour moi de remercier aujourd'hui euh, may les gazelles de Lissa parce que booy xool ñun ñoom la ñu oo jigéen ñi la ñu oo tey allah allah allah baykat yi moo moo moo dekki ndax jigéen ñi ñoo porté woon combat bi waaye également on a invité ak benn mouvement association bu nekk biir Médina di 100 pour cent Médina xam ne moom li nga tax jóg juste mooy développement de la Médina ñun ñoom kese lañ invité mais malgré ñu jéem a lim suñu invitation dañu déborder en nombre bu coow li bu coow li jibee nag ci la ñuy libéré ñu bëri ne leen kat dem nañ seen kër parce que bëgguñu tuumaal ñu bëgguñu dëkk ñu fa xam ne ñun dëkkuñu fa waaw ay alliés ñu euh, ay wujj bu ñuy xuloo ku leen gën a laqal la ñu tudd turam waaw donc ku ci gën a joxe ku ci gën a aay la ñu bu dee ñëpp dañu singale ñun xëy na luñ jiitu moo tax te bu jiitu tamit bu ñu wax ñu wax si bon ñun ñun amuñu seen temps te te Alioune Ndiaye nee na ki nga jiitu moo mën xool ni ngay doxee kon bu dee dañuy xeex rek dafa ñu ne seen kanam rek mais loolu ndogalu yàlla la inna fadlu lillahi yuti man yasha ndogal yàlla yàlla kon ne la jox te jox nañu ko biir Médina et puis on assume nos responsabilités te li ci kanam it rawul allahu rabi. waaw delluwaat na kaa benn euh, ñun xulóowuñu ak kenn encore une fois nous on est là pour soutenir toutes les actions du président de la République euh, monsieur Macky donc ñun buñ ñu oowee donte amuñu invitation à la Médina dem nañu wuyu ji donc ñun lépp luy soxal Médina. te fu ñu ci oo ñu wuyu la ñun amuñu xaar ma yàlla ak kenn xam nga lay am yàlla kii nga xam ne yéen a Médina jàmm ñu ne am na yow ma yàlla.